yàlla defuloo kenn luy te mbëkk internet yi comme niñ leen ko baaxee woon di koy def ak yéen waaye ba tey niñ ko àndoon àndandoon ak yéen ñu ngi ba tey ci ki nga fi nga xamante ni rek mooy que imam Makhtar Cissé doon koo xamante ni macha allah kenn dootu ko naatable ci tarixa cheikh waaye kenn dootu ko naatable fi nga xamante ni mooy Thiès rawatina cité Lamina dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu ngeen xamante ni. suñu tonton suñu papa yëkkati na ko muy Serigne Mansour kàddu yi am solo macha allah waaye dañuy daal di ñëwaat rek ak suñu beneen tonton nekk kenn moom tamit ci kër gi waaye buñ ko waxee rek xel yépp dañuy daal di dem ci oustaz Kabir Sène muy ndaw oustaz Abdoulaye Ndaw doon ki nga xamante ni moo yor Kabir Sène tatagal ko. def li nga xamante ne sii moo tax àddina bépp bëgg ko duma wax sax Sénégal waaye àddina bépp bëgg ko muy Abdoulaye Ndaw jiite li nga xamante ni mooy daayira sopp na bi dama koy daal di bàyyi mu nuyoo ak mbokk internet Kabir TV Pape maa ngi lay nuyu. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma salli ala nabi rahmatin muhammadin wa ala ali wa sahabatihim ajmain wa ahmar mawlana abil abbas ahmad tijjaani wa man lana iliwu silul kaasi wal umami mbokki kabir tv mbokki àdduna bi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bi ñuy wax kabir tv eh, ñu war waxtaane nag koo xam ne nii nit ku tedd la ci ñun muy Mouhamadou Kabir Sène muy nit koo xam ne nii yàlla dafa dogal ñu ànd ak moom ca bañee ndaw bokkoon ak moom daara ji tey jàngandoo foondoo foom xale màggandoo daan woyantu jamono boobu ñu ngi am ay sept ans buñ ko daan def dañuy def baas boo xam ne mbuus lay doon wala saako te saako ceeb yu njëkkee ñu dugg ci biir wut sondeel taal ko kabit di woy ñu aw baayam masen seen yàlla na ko yàlla yërëm danaa ñëw fekk ñu fi ñu toog mu jëlal ñu mbiskit nañu yàlla na ngeen màgg ba lii ngeen di def nii mu nekk dëgg ci yéen loola dem ba mu yàgg na ku ne topp sa yoonu bopp mu yoonu ndaw ba mu yàgg rek benn jour ñu daje eh, kabir seen demoon benn répétition ñun itam ñu doxe woon sunu ndaw ba ñëwaat toog comme dañ daan def ku ne bu doxee ba pare day ñëw ñu toog waxtaan tuuti ku ne de yeewee ko ñu ne Kabir woyal ñu tuuti ci Serigne Babacar Sy bi muy commencé woy ñu nekkoon ci kër gi yëpp yeewu ndax boobu onze heures jàpp minuit la woon kenn ci jigéen ñi yeewu daan yéen da ngeen a war a wut daayira loolu noonu wenn yàlla da ci def ilham daa koy barkeel ba ñu subaa ba ñu yeewoo ca suba ga rek ca la ñu daal ne nañ wut daayira jigéen ñi nga xam ne ni ñoom lañu daan àndal ci wàllu ndaw ñoom lañ njëkk a contacté ne leen dañoo bëgg a def daayira yàlla dogalit loola noonu yàlla jàppandil ko loolu moo ñu duggal ci tagg sayyidu wujudi di alayhi wa yàlla dogal it ñu am ca trois mois rek yàlla wërsëgal ñu dem ci alaaj abdu dem ci alaaj du mu jox ñu turu daayira soppe da baax loola noonu nag muy dox kabit di gën a am progression kabit di gën a am progression te moom moo mënoon a woy ci ñun mais ñun li ñuy wax mbooloo mooy doole Kabir moo ñu dooleel au lieu que ñun ñu dooleel ko mais moo ñu dooleel ndax moom moo nekkoon star bi ndax moom mënoon na woy ci beneen fànn bu dul woyu diine muy woyu jamono nii da ko mënoon amoon ci talent daan ci def ay répétition Thiès ñu bëri daan ko jël jamono boobu am na woykat bu fi nekkoon dafa soxla woon Kabir pour mu woyal ko ci wàllu traditionnel waaye nag yàlla namm Kabir baax yàlla namu kabir nekk euh, nit islaam te lépp nag mi ngi ci kër imam Makhtar Cissé parce que ñu nag moom ñoo yaroondoo ci kër imam Makhtar Cissé te loolu nag dañ koo booleeg après bi ñu jógee fii ci imam Makhtar moom dafa dem franco arab man ma dem al azhar ñu ñaa ñëpp ñu dem franco arab muy jàng may jàng su ko defee nag bu ñu jógee ci njàng bi dañuy ñëw boofu ci kanam imam Makhtar Cissé mu yokk ñu doole yokk ñu xam-xam yokk ñu fit doole noonu naanal noonu nag lañu def nag tagg yont bi gën a màgg di gën a màgg ba mujj gi ne ñu dem bay génn Sénégal di dem yeneen réew yu mel ni gàmbi ak di ñëwaat loolu la ñu commencé léeg-léeg ñu dugg biir Sénégal fu mel ni Ndar wala ñu dem Kaolack ñu lañu daan def léeg ñu dem ndakaar wala ñu dem Jolof. est-ce jamono. non yombul parce que boobu ay paa rek lañu fekk ay mag. yoo xam ne ni amoon nañ ay soixante ans soixante-dix ans maanaam euh, moromu Pape Mbaye Donde yi ñooñu lañ fekkoon boobu ñun ñi ngi am ay vingt ans dix-huit ans boobu kenn miinewul xale bu yooy daan nañ ñëw ci programme nit ñi daan nañ ñuy xeeb ba duñ ñu xaw a jox ñu woy dal nañu benn ana ñu dem gaal gàmmu alaaj Tijaan ñang ca Ndar kooku mu mu euh, mu xàddamu sëriñ Babacar Si la ñu fekk fa ay mag yoo xam ne ñoo yoroon woy yi. nuyu suñu papa Moustapha de passage porte eh, bi ñu demee toog ci tànt bi woykat yi mag yi woy bari daaneel ba nga xam ne fajara ñu jot ñu ne comme xale yi dañoo jóge Thiès nañ leen may ñu mos boobu ci mos lañ toll mais bi Kabir jógee woy dañ ne lu tax kii joxuñu ko mu ubbi gàmm gi parce que talent bi mu amoon la. te amul na pëns bi aussi yàlla dimbali woon na ko defaloon na ko sutura woykat dafay am pëns nga xam ne boo ko xoolee rek am looy sentir ci moom te yàlla da koo mayoon loolu mu doon nit koo xam ne nii nag noonu la yaroo woon noonu la amee woon ay teggin kapi daawul wax ci kaw daawul gëdd nit daawul jànni nit doo xam lu ko neex lu ko naqari du taxaw sur scène wala maanaam du taxaw ci kanamu tànt ba nit def ko lu ko naqar ba nga gis ko ci kanamam wala ngay mu réactionné ko du ko def ñun dañ doon roy ci moom ndax jikkoom yu rafetoon loolu nag ba léegi moo nekk ci moom. dégganteem ak ki nga xamante ni moo waral bés bi tax ñu teew fi tey mi imam Makhtar Cissé diggante oustaz Kabir Sène imam waaw diggante oustaz Kabir ak imam Makhtar Cissé ak papay Kabir Sène dafa doon diggante boo xam ne ni diggante mbokk la doonatul woon dox daje ndax doom boo ko yoree ba mu màgg kan ko jox ngir mu def ci moom jikko ju rafet boo ko jàppee nga ko ni sa bopp Imam Makhtar Cissé ak góor gi ma seen seen dañoo nekkoon ñaar ñoo xam ne nii ay nitu daara lañu woon góor gi ma seen seen yàlla da ko mayoon mu la lasraar mooy kurus ak xalima Baye Makhtar Cissé mi yàlla may ko mu man kurus man xalima ñoom ñaar nag yàlla li ñuy wax naan mag ñi dañuy dajeef ca yàlla ca yàlla la ñuy xamante mais du ñu xamante ci nii rek ñoom nag dañoo daje fa yàlla xamante fa looloo taxit kabir bi màggee ñu jox ko imam Makhtar Cissé mu yar ko bi eh, góor gi ma seen seen génnee àdduna kabir dafa laxasaayu nag ñëw sukk ci kanamu imam Makhtar Cissé daf ko bàyyam xaqan dëggal loolu nag ba gàmm gi weesu daf ne du ma yem rek ci yónnee sama télé mais damay génn sama poos jox ko dama koy xottil grand mbubb bu rafet lool jox ko mu sañsee ko ci bis bi mu xam ne doomam tey ren defaat na loolu daawu jéegi defaat na defoon na loolu ngir wane ne baayam moo xewle waaye du du dëkkandoom Imam Makhtar Cissé ak Kabir Sène baay ak doom lañ sëriñ ak taalibeem la lu ko Kabir defar rek man yëg naa ne Kabir xeeb na loolu ndax moo tax tey mu yebal euh, Kabir TV mu ñëw fii élargir bis bi lim ci man lépp moom Kabir TV mi ngi koy def ngir élargir gàmmu Imam Makhtar si diggante la daal boo xam ne nii euh, ku ko mën a euh, wax lu rafet na nga ko def ndax ñoom ñaar benn lañ dun ñaar bàyyi doom lañu waaye ñoo bokk benn deret bi ba pare nag noonu la Kabir bëggee kër Sidi Hadj Malick waaye nag noonu la bëggee nag Imam Makhtar ndax Kabir man ak moom ñoo jëlandoo salaatu fatiha ci alaaj Abdu dama bokk ak moom lu bari daal ba pare nag yàlla dogaloon ma nekkoon président am waaye dama xam ci moom lu bari loo xam ne nii ormaale na ko Imam Makhtar ndax alifu Kabir seen Imam Makhtar moo ko def ci Kabir. kila jàngal xaraf nag dañu wax ne la bu ko neexoon tey bu banquee mu jël la dem jaay la wala mu tay la la ba abal ko xaalis boo xam ne da koy fajal soxlaam su amee delloo doog laa récupéré wu kon dañuy wax ne kon sëriñ ak taalibe kon buur la ak jaamam bu ko neexee jaay bu ko neexee jariñoo noonu nag la demee woon ci Kabir Sène ak imam Makhtar Cissé. papa kàddu yi rafet na dañ lay bàyyi ak rek nga daal di tàggoo. waaw noonu la yàlla rek. gërëmaat ko bu baax ndax moom mi ñu wërsëgale ñu dund daaw ba ren te defal luñ ko lu tax mu defal ñu ko ñu ngi ko ciy gërëm bu baax di sant it nag bu baax ñaanal yàlla imam Makhtar Cissé yàlla doole guddal fanam ñaanal yàlla yàlla doole sa jàmm Hadj Mansour yàlla doole sa jàmm Kabir Sène it yàlla gën koo yëkkati ba ci kaw Kabir TV it nag ca kaw ca kanam ci lu baax ci barke Seydou Wujudi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala dara defuloo kenn luy